dikkati naa ku nekk sa bés tribune yéene kaay man bés ba doon xaar ñëw na fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre ni ki suba la ñu lett nag baa firi Ousmane Sonko faya a yéene kaay bi dee média bi naan man diggante cour CEDEAO waaye tam cour suprême war a atte xam leen ndax njiital Pastef mën naa bokk ci élection présidentielle yi am déet tribune naan man fii ci réewum Sénégal ci réew mii ëttu attekaay bi gën a kawe war a yëraat dogal bi nga xam ne juge Sabassi Faye defoon na ko ne Ousmane Sonko dañu jëlaat turam daal di ñaabar ñaabari ci liste xam ne faase woon nañ ko ca ni ki ëllëg nag moom cour bi war a le dan ko cay bindaat wala faase bi moom day daal di dëggu ci mim réew fa yàllaaxu yéeni kaayub dee média bi naan man déggal lii def nañ ko fi Karim Meïssa Wade def nan ko Khalifa Babacar Sall tey jii mani la Ousmane Sonko lañ ko def moo tax yéeni kaay bi naan man yaa jamais 203 xam nga nag ci jamono moom Karim mii nee woon nañ ko dafa jël alalu senegal yi jël tëj ci rëbës gi pare daal di tàbbal Qatar fi mu ne Karim jiitewul lu dul WhatsApp Khalifa Babacar Sall niki noonu tàbbi na rëbës moom xaaf ñàkk mairie bu ndakaaru tey jii moom xalifa baa Babacar Sall ñi ngi ne waat mi ngi ci liste waaye ba tey bokkam ci élection yi gaa yaa ngi koy laam-laamee te toatekaay bii di CEDEAO weñoon na fi loxol président Macky Sall naan koon baal Karim baal Khalifa nañu bokk ci élection seen jàpp gi jaarul yoon ndax jëfee na koy turbine ne ma déedéet Sall kay noppu tëx la mayee fayal laahu déggul CEDEAO déggul keneen la mu bëggoon ci ñoom daal dina koy matal daal dina koy amal tey jii nag Ousmane Sonko ci boppam la ñuy atte ay mbiram ëttu attekaay bi war a joxe ab dogal ni ki ëllëg moom CEDEAO ci ne Ousmane Sonko li ñu ko def ca xat ca xatee àq ak yelleefam la wala it li ñu ko def moom Ousmane Sonko jaadu na ci mim réew la CEDEAO nar a dogal ci moom ndax Sénégal dana ko jëfee tribune naan man jëfewu ko ci xalifa jëfewu ko ci Karim ndax nag dina ko jëfe ci Ousmane Sonko mii mooy wax ji yéenekaay bi naan man ëllëg daal ëllëgu ñëpp ndax Juan Branco ci boppam xam xamle na dina yegg si Ndakaaru ci aljuma ji Mamadou Lamine Diante coordonnateur bu Lacoste yor yor yéenekaay ne fukki fan ak juróom ñaar ci weeru novembre gii de askan bi ci boppam ñoo fas yéen a jug nag defu benn ak say sabab gii di dooleel ak jàppale Ousmane Sonko Walf Quotidien naan man fi ne day gaayaa ngi ngembu ngembu goo xam ne teg nan nag pression ci ndoddal président Macky Sall Source A naan man fi ne day tane na moom Ousmane Sonko bu doon dañu ne dafa wopp moom Sonko fi mu ne tane na ma ngay bind ak di saafonteeki ñoñam 24 heures yéen i kaay naan kon waaye ma ca kaso moo tax nag fippu daal di am ci caxat-caxatee gi ni caxat-caxatee ak ak yelleefu doomu aadama askan wi ci réew mi juróom ñeen fukk ak ñeent ci ay personalité yoo xam ne ñi ngi ci réew mi bokk na ci ñoom professeur Mamadou Diouf bokk na ci ñoom Alioune bokk na ci ñoom premier ministre ba woon Mamadou Lamine Loum bokk na ci homme d'affaires bii di Bara Tall bokk na ci ñoom Cheikh Tidiane mbay bokk na ci ñoom maître Mame Adama Gueye bokk na ci ñoom Felwine saar ak ñeneen daal na ñuy xaatim ab pétition boo xam ne association Demain Sénégal lañ ko dippee ñu xam leen nag téeméer boo jël fim ne ci réewum Sénégal juróom fukk yi ak ñett nañu yoree réew mi neexu leen administration électorale boo xam ne naan bindaatal kii ñu lànk mësuñu koo gis yoonug réew ak démocratie war a ni copp taxaw ci mim réew ndax mooy tax réew mi dox ñoom ñu xam leen ni dañ def kéemtalaay kàttan ba képp koo xam ni ab sénégalais nga di nga mën a bokk ci élection yi nga xam ne tëgg nañ ko ci réew mi bu dee sa mbëbët la nga mën a bokk ci les élections ñuy fàttali nag administration électorale bi ne ko la ko war mooy tëddee njaaxaanaay na yaayu seex nangu dogal yi nga xam ne bàyyeekoo na ci yoon waaye tam daal di taxawu seenub askan vox populi daal di may xam ni wàllug démocratie démocratie lañ bëgg défendre ñoom ñii ay politiciens lañu ay hommes d'affaires lañu wala it ñu bokk ci société civile xam ni démocratie ak justice daal moo mën a téyam réew ëllëg Sénégal daal di ni képp kuy candidat ci présidentielle yi war ngaa mën a taxaw nag waat ci kanamu sénégalais yi neeb salfaañi ak ak yelleef moom dootul amati ci mim réew waaye tam jëfee la nga xam ne assise nationale yi tënkoon na ko tribune naan en tout cas ëllëg daañu xam fu Ousmane Sonko yéenekaay naan kon dal ci réew mi nga xam ne téeméeri fana des ci ñu waajal présidentielle yi dal moom daanaka réew mi day taxalikoo ak moom ndax nag dañuy daal di dund ci ambiance pré campagne waaye itam dundu ci ambiance njeextal wàllu parrainage daal di nekk ci élection yi day amam du am xaatar bi ba biir weex teg ci suuf mel ni tulleeg maale ci réew mi coalition jaawo nekk ci coowal clé USB candidat bu pur bi moom di xam ne dañoo war a tabax réewum Sénégal Amadou Ba Pastef naan magistrature bi nañ ci wax ngir retenu politique yi génn Dame Mbodj ak ñamu àndal téeméeri junni ci yi parrain la ñuy wëral Cheikh Omar Diagne le mandat naan en tout cas gëm sa bopp ma nga cay woon wa ca diwaanu Kër masaar ña fay def liggéey bu am solo lii ko di jee naan maan ñaar fukki junni ak juróom yu toftal juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom ci parrain daal daal dinañ koy dajale ñoom waa gëm sa bopp te lépp nag ma nga amee ca diwaanu Kër Massar yor yor yéene kaay naan man bugaan gay dani ma ngay wasaare Kër Massar ci week-end bii turbine yéene kaay xamal ma ne diggante Médina Kell ak Sotrac Parcelles Assainies ba buun ay nitu bugaan fu nu romb gaaye naan leen kaay leen ñooy xaatim Khadim Sarr grossiste bu nekk foofee daal di xamle ni pareneel bugaan mooy pareneel ki nga xam ne daf laa boot ba dara amul bés bu amee ni la noogu ki jox ndéeg bu la diggee añ tëddal ba yandoor Landing Diatta professeur philosophie ne ku bëgg tekkil sa bopp da ngay gëm sa bopp gaa gëm sa bopp ya daanaka jooy nañu ba leen way laago bi xam xamle ni fi mu ne yaakaaru senegal ma nga wékku ci bugaan géy dani gaa yaa ngi koy pareneel te di ko yóbbante naan kon jaxaay benn poste de santé la am bés boo faloo daal di koy yëraat xamal ko ni jafe bëgg nañ tàqalikoo jokko ak moom coppite gaa yi daal koy wër xam le ni ñaar fukki junni ak juróom parrain yi nga xam ni teg na gaa yaa ngay mbébét am juróom fukki junni ndax mbébét ak bëgg-bëgg bi nga xam ne waa Kër Masaar wane nañ ko l'enquête ko jee naan coow li moom moo di waa APR ci boppam lan la ni ndaga fi mu ne ñee nga ànd ak Amadou ñeneen ñaa ngi koy xas di ko jori xeer yéen kaay bi naan maan moo ne day ñoo ni woon président Macky Sall koonu tànnal ñu jël tey tànnal na leen Amadou ba ñenn ñaa ngi koy tuy tul ñeneen ñaa ngi koy dóori xeer te lii boo moytul mën na yàq seenub élection fa yallaaxu Ibrahima Bakhoum ne ñoo sant président Macky Sall suba nga koy critiquer Pape Amadou Fall ne en ci boppa moo war a tallal jël yoonu boppam daal di ko président Macky Sall bu dee bëgg na am dara ci laam-laamee dañuy dàq élection am déet njiital awalee docteur Abdourahmane Diouf naan xel xalaatu ko ci mim réew l'observateur naan kon booba coow li coow li mu ngi nag tey jii milliards yi nga xam ne ñi ngi koy def nañu ci wér gi yaram yooyu le milliards fan la daal di soobu l'enquête bi xamle na ni ay jafe yi neen la ñu am ngir jënd ay équipement ngir yi personnel bi am ay jafe-jafe ngir jot seenu salaire investissement yi nga xam ne hôpitaux yee koy defal seenu bopp matalewul wér-gu-yaram daanaka di sukuraat ci réewum Sénégal ña nga xam ne ñoo ciy daal di yëngu nekk ci jafe-jafe yoo xam ne maar day taali l'observateur naan man moo ne day ay milliards la ñuy wax adu yàlla sàkk ne ñi ngi koy tibb di ko def ci wàllu wér-gu-yaram milliards yooyee France daal di xiddeem kenn gisu ko kenn seenu ko coow la nag moom moo di jafe yi nga xam ne hôpitaux yaa ngi ci wér yaram nekk ci ci réewum Sénégal te milliards ñu leen ko fay def fan la